Nabou Zaïs ba ci biir émission bi di 100 pour 100 people ñu fas yéene ñëw nag daal di leen jégleel la euh, tout ce qui est information people ak faits divers yi gën a fës ci biir internet bi dañ koy tàmbalee nag li nga xam ne moom moo di euh, coowal Ousmane Sonko bi nga xam ne démb ak barki démb ba tey euh, sénégalais yaa ngi ciy coow waaye démb mu nekkoon loo xam ne dafa daal di tàng jër dëkk bi daal di tàng mu bëri woon nag ay gaañu gaañu bëri nag ay dégâts waaye tamit bëri na ci yoo xam ne dañ ko daal di lakk daal di ko yàq.

jàpp nañ ay manifestants waaye tamit gañ nañu ay éléments yi nga xamni ñoom gendarmerie le concerné ak wa police gañu gaañu yu metti amna ci demb ñoom nak dañu daal di li nga xamni ne conseil de guerre fofé ci ministre del ministère de l'intérieur intérieur kan la nak wa gendarmerie ñoom ñoo fa nekkon ak wa police ñu daal di def réunion maire ba futu nak ndax li nga ne la partisan wu Ousmane Sonko koy daal di def amu nek nak lo xam ne xéñ neexagul ndax gëw ma dina neex ci nga xam ne moo di Ousmane Sonko ndax kii di procureur Serigne Bassirou Gueye dafa daal di mer ba fotu te jamono ji sax war na mën a jàkk day war jàkkaarloo ko ki nga xam ne moom moo di média bi di presse ah, pour wax leen nag li nga xam ne moom mooy décision bi ñu jël waaye dina métti ci ki nga xam ne moo di njiital ah, Pastef di Ousmane Sonko gannaaw nag bu weesoo ah, coowal viol beek ak agression beek li nga xam ne moom moo di boom lañ ko daal di tuumal dañuy daal di ñëwaat ci fee yu bees tàq yi nga xam ne démb bala la xew foofee ca diwaanu Sacré Cœur kër góor gi buñ jógee ci loolu dañuy ñëwaat ba tey ci li nga xamné mo moo concerné kookee di Ousmane Sonko ñu ne affaire Sonko Adji Sarr et les résultats de ses tests gynécologiques Adji Sarr daal moom it dafa daal tok ci li nga xamné rek moo di position am taxaw ne teemu ne Ousmane Sonko daf ko fal li nga xamné ne di viol répétitif ba paré yemu ci daldi ko menacer ak ñaari arme ci biir lolu nak mom momu daldi na dem pour def li nga xamné mom moom di test gynécologique pour xol ba xam loolee euh, relation bobu muy wax né euh, mom ak Ousmane Sonko ñoko ko daal di sekk am na am déet wala ay sos laak du sos l'essentiel ci euh, test yooyu lañ koy daal di mën a xamee moom it dina ko def jamono ji nak ñu ngi xarangi li nga xamné modi moo di résultat yooyee ba xam nak fan la wànnent di mujjee ki gëttam ñu joggé ci lolu dañuy daal di demaat ba ci actualité bi nga xamné mom mo moo concerné ko kii di njiital Pastef di Ousmane Sonko wax gannaaw bi nga xamee ne nag démb mbedd ndakaaru yi tàngoon na jër jër jër tey nag bi ñu xëyee mbedd bi njoona yi moo daal di tàng ba romb ba jéggi dayoo li nga xam ne moo xewoon fii ci ndakaaru jamono ji nag ñu ne show affrontement à Bignona ce mardi l'armée en renfort mu nekk nag loo xam ne nag doy na waar ba doy waar yem ndax yaakaar naa lii bu continuer dina daal di jur li nga xam ne moo ji déyoo déyoo boo xam ne nag dootuñu xam fan lañ koy waxee wala moom mii di Ousmane Sonko dina na am lu ko metti lol lol lol donc jotna partisans yi daldi di bàyyiwaat xel bu baax ki lañuy def waaye tamit xoolaat bu baax seen réaction envers les Sénégalais wala tamit envers ñi nga xamné ñoo di armée B nationale

jàppale foofee di këram ne ko nag kenn du dugg bu kenn génn bu kenn duggu waaye tamit bu ko kenn daal di jege mu mel ni daal jamono jii dañ koy waajal li nga xam ne moom moo di yóbbu ko foofee ca brigade des recherches en tout cas dinañ ci ñëwaat ci anam yu gën a leer yu mucc ayib buñ jógee ci lolu ba tey ci actualité fait divers ñu ne Way un grand commerçant saute du troisième étage et se fracasse la tête À nekk nak affaire bo xamné ne war ba fa doy war yam nak commerçant bi ben gérant de dépôt boisson la woon moom moo daal di sauter rek troisième étage dal di dal ba ci souf bopp bi dal di dal nak direct gu bëri Dal di ko sango liko waral nak xamuñu ko waxaguñu li nga xamné ne di cause bi amé jamono ji dal nga xamné modi ay voisins daal dinañ ko jël secourir ko yóbbu ko ci hôpital bi nga xam ne moom moo di hôpital de hôpital principal de Dakar lañ ko daldi di mais biñ ko fa yóbbee dafa daldi nek comment 24 heures après ci la daldi di way ba tay bi mu yeewoowee dafa perte connaissance waxagul dara ñu ngi koy continuer di topoto di subre way tamit enquête ba ngi wëyal di dem pour wax lan toplo, wara war fofé ci 3 troisième étage ba xam dañ ko ba max am moom moo soteel en tout cas fee yi doy na dinañ ci ñew ci ni mu gëna gaawé buñ ci lolu ba tay ci actualité fait divers dañuy ñëwaat ba tey ci coowal Ousmane Sonko ak coke di Adji Sarr ñu Pikine Adji Sarr l'autre visage de l'accusatrice de Sonko elle est devenue tutu et bagarreuse et n'hésitait pas à sauter par le mur si elle était punie témoignage de sa tante tante mo dal di wax lool nee na ki nga xamné nak modi Adji Sarr bien vrai que sen deret la sen dom la ñëwuñu nak pour gën ko yokkal ndax problème la am yokkaluñ ko problème wala ko sans way len rek lañu mëna wax moy que ni nekkul nit ko xamné dafa set 8 8 8 nekkul nit koo xam mën nañu wax ne daal dafa yaru wala dafa noppi wala dafa def nangam ndax nee nañ ko dëgër bopp la ko am fit la waaye tamit koo xam ne daal bëgg def da koy def te mënu kenn mënu ci dara nekk na daal koo xam day jékki-jékki nekk ci kër gi jékki-jékki fàkk des jours duñ ko gis duñu xam ci lu mu nekk mu ñëwaat maanaam jigéen bu terrible la xeex taxawaalu dox mooy métier ñoom loolu lañ ko daal di waxal mu nekk nak ay accusations yo xamné propre famille ñoko ko waxal ñoko ko def. voilà c'était votre émission 100% people ñu donna am contentement comme niñ koy waxé say suné di len dalal sen biir site di VIP people ak VIP info point net di len jox tout ce qui est information people ak fait divers di len jox dig daje sen 3 troisième numéro de la semaine d'ici là portez-vous bien et restez scotchés dans vos sites internet VIP people et VIP merci beaucoup à la prochaine bye.